man la Cheikh Mbacke Niang bokk ci daayira Rawdu Rayaahin ci ñi jiite wàllu culture bi euh, nekk tamit euh, bokk ci ñi nga xamante ne kuréel gi nga xam ne mooy amal euh, waxtaan wi muy colloque bi maa ngi nuyu di ziare bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy ànd ak ñun ci site bii di GMTV GMT TV mooy Grande Mosquée de Touba di rafetlu bu baax a baax seen liggéey. waaw ndaje mi ndaje mu mag la moo xamante ni ñetti at yu nekk lañ koy faral di amal muy ndajam mu tënku ci wàllu ngirum sufiyanke muy wàllu yareyin ak dundin bi nga xam ne moom la Serigne Touba ñëwoon ngir yeesalaat ko euh, muy ndaje mu réeréer moo xamante ni sénégalais yi dañ ak ñeneen ñu dut ay sénégalais yàlla dogal nag ren euh, doon ñeenteelu yoon bi nga xam ne moom lañ koy amal euh, mu dajeeg nag mbas mi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi ak fii ci biir Sénégal muy coronavirus bi euh, ñu jël ci nag ay matuwaay yu ama am solo ngir mbas mi bañ fee tasaaroo ci jamonoy màggal gi dañoo bëgg sax mu mu doxe fi dem ba faw ci jóge Sénégal ñuy ñaanit mu jóge ci àdduna bi yëpp euh, ñu taw tàmmoon nag ren tomb bi ñuy wax alxidma xidma mooy def lu baax loo xamante ni xëy na warula yàlla farataalu ko ci yow waaye nag njariñ li dafay dellu ci askan saw askan nga di ko def te yàlla tax te doo ci séntu njariñul àdduna lu teew loolu Serigne Touba eh, taxaw ci taxawaay bu am solo ndax da ko dugal ci aw yarinam ñu ràññee ci yoonu murit ba moom ci boppam sax ñu du ko dakkantale xaadimul rasul eh, mu doon lu ama am solo thème bi kon di xitma nekk jumtukaayu xeex coronavirus eh, loolu it lu tax ñu def ko mooy dañoo gis ni mbas mi jeexital na ci dundinu doomu aadama yi ci réew yu bare bare bare fii ci Sénégal eh, fii ci Touba rawatina ci wàllu suñu dundinu diine eh, dese na cee jeexital ndax gis nañ ni sunu jumaa yi jumaa ju mag ji musta tëj waaye nag dañoo fexe ba eh, adapté sunuy comportement suñuy jikko sunuy melokaan suñu jaamoo ne yàlla ñu fexe ba jël ay matuwaay yu mën a ànd ak mbas mi ci noonu lañ gis sëriñ bi bi mbas mi feeñee Sénégal rek moom bokk na ci kilifa yi njëkk am taxawaay ci wàllu alalam ak ci wàllu tënku ci li nga xam ni moom la kilifay kër docteur di santaane loolu nag mooy tomb bi nga xam ne kon moom la ñuy waxtaane mooy xitma boobu naka lañ ñu ko mën a jëfandikoo ngir xeex coronavirus di ko seq ak ay boroom xam-xam yu mag a mag ci biir senegal ak ci bitti Sénégal euh, fukki réew ak ñett buñ ci boolee Sénégal danañ bokk ci waxtaan réew yooyu mënees na ci tudd France mënees na ci tudd Angleterre Belgique mënees na ci tudd Nigéria mënees na ci tudd Somalie Maroc Tunisie mënees na ci tudd Syrie ak euh, Irak Mauritanie ak yeneen réew yu bare bare yoo xam ne Arabie Saoudite ñoo ñëpp dañ ci dañu bokk ci waxtaan wi su ko defee nag euh, mu doon loo xamante ni nit ñi duñ dajaloo Euh, dañuy kay def li ñuy wax vision conférence jamono yi sax yaa ngi gis kilifa yi docteur yi nga xamante ni ñooy wax euh, ñenn nekkuñ ci biir réew mi léegi nag mu doon euh, jotaay boo xam ne tamit dañ cee lënkaloog waa université virtuelle du Sénégal mooy ñi nga xam ne ñoom seenu njàngale université bi nga xam ne njàngaleem lépp ci jumtukaayu xare yi la koy jaarale ngir wàllu technique bi mën ñu cee jàppale ba tax na am nañ ci ñeneen it euh, partenaire yu mel ne Bichri TV yu mel ne site internet yu bari Murid Geek ak yeneen ak yeneen ak Magal TV ba ci yéen ñi sax mënees na ko ko cee boole su ko defee mu doon loo xamante ni lu ama am solo la université virtuelle du Sénégal rek euh, ñoom boo xoolee ay ay ndongaam ay étudiant ëpp nañ fanweeri junni xam nga ni kon ñooñu bu ñu ñoom ci liggéey bi danañ ñu jàppale ci wàllu technique bi waaye danañ tax tamit ñu am beneen euh, cible bu bokkut ak ñi foogoon. su ko defee réew yooyu yëpp nag ñoo koy seq buñ ko defee tey ak suba mu war a nekk ci juróom benn jotaay jotaay bu nekk jotaay yëpp buñ ko boolee ña cay jël kàddu danañ toll ci ñaar fukki nit buñ ci génnee ndaje mu njëkk mi ubbite gi ak ndajem tëjte mi su ko defee kuy jël kàddu ku nekk tamit fukki minute lañ koy jox ci docteur yeeg euh, waxtaankat yi euh, tey bis bépp fii la ñuy yendu bu ci yàlla àndee def ci ñeenti jotaay bu subaa day xat ndax àjjuma ji waaye suba gi du am waxtaan waaye bu ngoonee bu fukki bu juróom-benn bu ñeenti waxtu jotee ci la ñuy tàmbaliwaat def yeneen ñaari jotaay doora euh, jublu nag ci ndajeem tëjte mi nga xamante ni ki yor kàddu Cheikh Mouhamadul Mountakha dana ko teewe ak yeneen kilifa euh, ngir ñu tëj ko tënk euh, génne li ñu wax déclaration finale mooy albayaanul xitaay mi. Euh, mooy déclaration bi ak liñ tënk ci waxtaan wi jébbal ko kilifa gu mag gi Cheikh Mouhamadou Mountakha jébbal ko tamit ñi nga xamante ni ñoo yor dogalu politique bi fii ci biir réew mi du tey nag mboolem gëstukat yi ak boroom xam-xam yi ci àdduna bi yëpp képp koo xamante ni gis na ni loolu mën na koo jariñ mën na koo jëfandikoo ci anam boobu daal daanaka bu ma ko bëggoon a tënk ñu di ko def nag ci ñeent ñetti làkk kàllaama muy arab